di la saagaak di la xasaak di la wax ju ñaaw rawatina boo nekkee njiit ndax nit ñi kat ji jamono li jiitu woon jamono ju njëkk ja moo doon njaboot ak kanaaraa fi nekkoon mooy da daan euh, kilifa fa daan jiitu doomam yi nekk ca gannaawam léegi nag njaboot ak ganaara fi ne njaboota ak ganaar mooy ne yow ñi ngay jiital ñi nga jiitu yow ki sa wopp da nga leen jiital nekk ci seen gannaaw su ko defee ne comme nag loolu dafay am danga dégg lu ne dañ la jëfale lu ne waaye su boobaa li la yàlla defal ci ngay muñee li la doomu aadama yi def loolu tamit lu jar a bàyyi xel la moo taxoon yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam màkka la juddoo fala ay maamam juddoo fala ay baayam juddoo muy dëkk bi mu gën a bëgg ci dëkk yi ñoñam ña génnee ko fa keroog ba mu demee ba wan dëkk bi gannaaw xool dëkk ba bët ya sotti ronqañ mu ne yow yàlla génnee nañ ma dëkk bi ma gën a bëgg maa ngi ñaan yàlla nga ma yóbbu ci dëkk bi ma gën a bëgg mu dem ma dëtul mu nawara nekk fa ay xat ba yàlla may ko doole mu ñëw war a def fatxu makkata yàlla yëkkati kartanu dëkk ba jox ko ko jël yëkkati doole dëkk ba jox ko ko ak sañ-sañ ba ba ña ko doon toroxal yépp wala di ko doon jéem a toroxal ndax yonentu yàlla Muhammad kenn mënu ko toroxal waaye nit mën naa toroxee ci moom waaye waxin la di ko def lu ñaaw aka def lu ñu wax lu ñaaw mu dem a dem ba jekku leen ñoom ñëpp mu ne leen nag waaw tey lu ngeen yaakaar ne moom laa leen di def ñu yow de ku tedd nga mu ne leen aqulu maa qaala axi yusuf laa tasriba aleykum al yawma yaxfirullahu lakum mun leen daal tey li ma leen di wax mooy la yusufa waxoon mbokkam ya rek mooy tey duhut bi sa fàttaliku lu ñaaw tey duhut bi sa yeddaange tey duhut dara lu dul rek ñaan man jéggal naa leen di ñaan tamit yàlla jéggal leen yéen ñëpp kon nit ku baax piir su jekkoo am noonam dafa koy jéggal waaye koo gis muy ku bon ku mu jekku dafa lay jekkali te jekku jekkali nag duhut ngóora mais jekku jéggal loolu mooy ngóora moo taxoon benn labbe ci najaraan waxoon ne yonentuy araab yi man dee gëw ma ko waaye ñett jikko neex na ma ci moom ñu ne ko ban ak ban mu ne neex na ma ci moom lépp lu muy digle moo ca jiitu li muy tere kenn du ko ca gis kon kilifa noonu lay def boo rëddee loi yow mi rëdd loi ba wala yow mi nga xam ne yaa tax ñu rëdd loi ba yaa ca war a njëkk a aw buy lu ñuy teggi tamit yaa ko war a njëkk a teggi mu ne ko ak ban mu ne ñaareel ba saa yu bàyyeekoo ci xare gañe lu victoire ba rëy rëy rëy rëy du bàkku dafay sant yàlla muñ ba du feetu mbégte ñu ne ko ak ban mu ne ñetteel ba mooy su bàyyeekoo ci xare ñi gañe ko lu gañ maa ba rëy rëy tamit du saalik mu ne ñetti jikko yi daal neex na ma ci moom lool waaye nag gëw ma ko xam naa lu mu ci dolli woon rek gëm yonente yàlla muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam kon loolu rek bu ngeen gisee ñu indi mooy wane rek ne ki yor xéewal dafa war a muñ comme ni ki yor natt war a muñee noonu la Yuusufa muñee woon ba ko yàlla ma gan jox ko euh, mu mu ilif isibtu lépp di seen yonantu nekk tamit di seen buur yàlla bi ko tamit Suleymaan noonu la muñee woon ba ko yàlla joxee xéewalu tàggatal ko njanaaw yeeg picc yeeg maanaam ba ci xorondong yi muy dégg seen kàddu nangoo topp ndigalam dafa muñ tamit sant yàlla ci lim ko jox yonent yàlla Muhammad ba ko yàlla jekkaloo ay noonam tamit dafa delluwaat rek moom tamit mu muñ jël lépp delluwaat ko yàlla kon tamit yow mi yor xéewal yaa war a gën a muñ ci yow mi nga xam ne dangaa yore nattu muñ nag Oustaz Assane Diouf dafa am ay xaaj ñetti xaaj la am na lu ñuy tuddee sabru ala am lu ñuy tuddee sabru an am lu ñuy tuddee sabru fii sabru ala mooy as sabru ala taatillaahi bi dawaamiha mooy muñ ba topp yàlla ci dappetoo ko muñ ba li yàlla sant nga nekk ca rawatina yenn jaamu yàlla yi nga xam ne dafa mel ni lu xaw a tiis ci bakkan lu mel ni tey dugg ci jamonoy sedde nga toog a toog ba fajar dégg agi i nodd gi nodd nodd gu njëkk ay 5 nga war a jug war a waaj jàpp war a jug war a sangu nga becc ngal sa lal sànni sa càngaay suuru ndox mu sedd mi sangu boo waree jàpp nga jàpp daale bi ku dem xuus dem ca mbooloo ma pour julli ji kooku ku muñut mënuloo koo def mel ni tamit koor goo xam ne dafa dëppoog ak jamonoy tàngoor nga xam ne balay mideeg ineer rek fekk nañu xooroon ñëpp mar nañu loolu tamit ku muñut mënuloo koo def joxe sa alal te fekk bay alal di jafe li nga yor sax doyut la bu baax mais gis nga ku la gën a sonn gën laa aajowoo nga dimbale ku koy def li ñuy tuddee isaar kooku tamit ku muñut mënuloo koo def weer waa ngi bëgg a dee tombeeg mois de août nekk ci jafe-jafe ñu bëree bëri seen dépense amatuñ ko te yow yaa ngi am looy taqalee nga yëkkati ci li nga am jox leen ca kooku ku mënta muñ mënuloo koo def waaye am maa saraxe sab tabaski bu dëppoog lool li ah dëppoog weer wu dee ne ko góor gu tedd ga daan waxee Ibrahima Sakho suñu bàyyi loolu ku ne man nga ko loolu tamit def ko nag taxuta a tabe moo taxoon sax góor go ba muy way Moussa Ka ba muy way Cheikh Mbacke dafa ne ko Cheikh Mbacke ñam naa la yaay mos dool li waat naa ne yaa raw tabaskeeb lool li wane ne rek tabaski rek xéewal ba dajeeg lool li waxi nopp tabaski bu jeeg lool li saraxe ca taxut a muñ ndax fay fekk booba ñëpp ku ne mën nga caa saraxe waaye nag saraxe bu tolloog mois de août buy bëgg a dee ànd ak jamonooy jafe-jafe li nga yor doyut la nga yëkkati ca dimbale ci nit ña kooku nag mooy muñ ba yëkkati ci sa alal bokk koog ñi nga xam ne ñoo la gën a sonn kooku mooy kon sabru ala sabru an nag mooy a sabru an masiyatillaahi mooy muñ ba li la yàlla tere nga baxi ko bañ koo moy ku mel lu métti la mais nga am alal tedd te liggéeyoo neex na mais nga muñ ba bul sàcc alalu jàmbur muñ ba bul fëkk jàmbur muñ ba boo foree alal joo xam ne moomoo ko sax da nga def effort sonn ca ba fexe borom man caa jot bu ca borom ta jot tamit nag nga saraxeel ko ko yéene ko yool bi namu ca ne bis bu feeñee tamit ma wax ko ko bu fekkee bëgg na yool mu féetewoo ko su fekkee bëggul yool tamit ma féetewoo yool ba taman fay ko alalam ja parce que for moom du day du dagan mukk ki ko ki ko for moom boo foree jéebaaneel ci façon jéebaanu waay yi nga xam ne yaakaar nga ne boo ci jéebaanee dana war a feeñ soo ko defee def nag feeñut su boobaa sharia may na la nga jël loola saraxe ko yéene ko moom yool bi su fekkee dafa feeñ nag nga wax ko ko mu ne man kat yool boobu intéressé wut ma sama alal laa bëgg nga yëkkati ko delloo ko ko kon nga ragal yàlla boo léegi mën a muñ ba li nga xam ne nii li nga moomut boo ko mu boo ci jotee ci wàllu for danga fexe ba borom jot ca ci anam yooyu ma wax la naka noonu tamit bul sàcc bul fëkk bul agressé nga muñ muñ ba loolu lépp nga bàyyi ko waaye muñ ba bul fen muñ ba bul xaste muñ ba bul jëw muñ ba bul rambaaj muñ ba jigéen joo takkut bul jaxasoo ak moom muñ ba yow tamit góor gu la takkut bum jaxasoo ak yow muñ ba ñi nga xam ne yàlla dafa leen a jox xéewal ñu ëppale la nga muñ sa xol rafetal ko ba bu leen iñaane kon kooku ak yi ci aju yëpp nag mooy asabru an masiyatillahi ba ke des nag moo ci gën a xoyof mooy sabru fii mooy sabru fii mooy asabru fii musibaat mooy muñ rek ci musiba yi nga xam ne day gaar doomu aadama ci ay dundam ci jafe-jafeem ndax doomu aadama aw naqaram moo ëpp mbégteem ndax aadama bi ko yàlla bindee dafa taw ci moom téeméeri taw ñu ne téeméer taw yim taw ci moom yëpp nag juróom-ñeent fukk yëpp taw yi jafe-jafe la ak taw yi naqar fukk ya rek nag mooy taw bànneex ak i mbégte ñu ne kon dundu doomu aadama bu doon téeméeri xat misaal juróom-ñeent fukki xat yépp boo ko seetee naqar lay doon ak i jafe-jafe wala ñu ne tey doomu aadama boo seetoon daal maanaam fukki waxtu yu ne daal juróom-ñeenti waxtu yépp jafe-jafe lay doon benn ñu mu dégg ci lu mu a dégg mbaa mu gis ci lu mu a gis mbaa mu yëg ci lu mu bëggutoon a yëg wala am lu ko ca gaar lu ko neexut ci boppam mbaa ki njabootam mbaa ci alalam te yooyu yëpp xeeti naqar lépp lu naqari jullit rek loola musiba la bu nag moo tax jafe-jafe yooyu nag di la gaar ñi moñaale ko ak dunu doomu adama nga muñ a muñ ba delloo yàlla ba nga xam ne moo la ko teg lu mel ni la lu mel ni maanaam ragal say noon lu mel ni xiif lu mel ni wàññeentiku alal wala bakkan wala meññent moo tax taxoon alquran tënk na ko ci suratul baqara mooy sabru fii moom la wax ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsi min al amwali wal anfus wa thamarati wa bashiri sabirin mu ne man yàlla dinaa leen nattu ci loo xam ne laala moom ragal seeni noon la muy ragal rek ñàkk sécurité ci anam gu mu di doon ñaareel bi dinaa leen nattu ci xiif ci ay jafe-jafe yoo xamee ne nii yu doy waar ci yéen lay doon te doom aadama ku ragal xiif la fu mu sañoon fu mu toll rek dafay regg mu ne tamit ñetteel ba naa leen nattu ci wàññeeku alal alal joo dagalee ba am ca yaakaar mujj tas comme ren li nga xam ne dal na suñ mbokki baykat yu bari baya bay ba yaakaar rek yàlla dogal njéeri li ñëw yàqalu takkoo takku ci mbay mi waaye ñi ngi ñaan yàlla wuutalal leen lu gën li nga xam ne nii ñàkk nañ ko wala nga dagale sa alal mu nekk am sàq wala naaf wala yi ci haju safara ñëw bokk lakk lépp wala taa wàññeeku meññant wala wàññeeku bakkan yi ñu waroon a far alaloo alal ja ñëw mujj far bàyyee ko fi yooyu yëpp nag xeet la ci nattu ak feebar ak feebarle ak deele yooyu yëpp nag mooy sabru fii nga muñ ba delloo yàlla mi nga xam ne moo la teg natt yooyu léegi nag képp koo xam ne muñ nga ba nekk ci sabru ala def sabru an def sabru fii su boobaa nag yàlla dina la gatandoog lu tolloog juróomi xéewal juróomi xéewal yi bi ci njëkk képp kuy muñ danga am tagg wu rafet ci àdduna danga am tamit ngóora ndax nit ki su defee effort tonn ci ay jafe-jafe ba xëy la muy doon ut mu muñ ba am ko ah ñëpp nag dañ xam ne lii dafa ko mérité loolu tamit nag tagg wu rafet la loolu tamit ngóor gu rëy rëy la te tagg wu rafet la wu ñuy nettali ci sa dund nga génn àdduna ñi ko nettali ci sa génn àdduna ndax léeg-léeg nga la nit jox la loxo laaj la kuy sa baay wala kuy sa maam nga wax ko ko mu ne laa nanga nga gën a góorgóorlu ndax sa baay ku baax ku mënoon a muñ la sa maam ku mënoon a muñ la loolu tamit xam nga tagg wu rafet wu ñu tudd ci seeni i gannaaw la te tagg wu rafet ku koy xeeb rek da nga koo xamul ndax yonentu yàlla ibrahim bokk na ci li mu doon ñaan yàlla yàlla may ko tagg wu rafet gannaawam moo taxoon mu ne ko wajal li lisaana sidxin fil axirin yow yàlla yàlla nga ma may tagg wu rafet ci ñi may mujj moo tax yàlla nangu na ko yahood yi ku bëgg Ibrahima lañ nasaraan yi ku bëgg Ibrahima lañ jullit yi ñoom dañ ne far ñoom moom Ibrahima te loolu lépp li ko ko may mooy tagg wu rafet bi mu ñaanoon yàlla yàlla nangu ko kon muñ kat toujours dana am aw tagg aw bàkk wu ci dundam ak gannaaw bi nga xam ne ni génn àdduna ñaareel bi képp kuy muñ yàlla dana la sotti xéewal ci sa kaw kon xéewal ak yàlla nag gu mu sotti ki sa kaw kenn xamul ni mu toll moo taxoon mu ne ulaayika alayhim salawaatu min rabbihim ñetteel bi kuy muñ yàlla dana la sotti yërmande moo taxoon mu ne wa rahmatun yërmande yàlla nag xaajowoo nañ ko fii xaajowoo nañ ko fële ñetteel bi kuy muñ ku nekk tamit yàlla dana la jëf dana la jox njub ndax nee na ñiy muñ ba li may santaane ñi ne ca muñ ba li may tere ñi bàyyi ko muñ ba bu ma leen nattoo ñi ñi ñi delloo ma ko ñooñu tamit ñooñu nga xam ne ñooñu jub ña moo tax mu ne wa ulaayikumul na kon hidaayatu daal mi ngi ci ñi nga xam ne nii ñooñuy muñ ña ba kee des tamit nag da nga xam bisaaratu muy mbégte la yàlla moo taxoon yàlla wax yonent bi ne ko wa basiri saabirin bégalal muñkat yi kon loolu tamit bisaaratu la kon muñ bisaaratu mbégtee nga ca waaye salawaatu xéewal nga ca waaye rahmatu yërmande nga ca waaye tamit nag hidaayatu njub tamit ma nga ca waaye nag ba ca gën a rëy nag mooy képp kuy muñ nekk ca ba xëy génn àdduna bu yowmal xiyaamee yonentu nee na yàlla nee na xeres na laa peese ci say baskil waaye da ngay ñëw rek mu tuur la ay ay xéewal tuur la ay may ba nga ba nga fees tepp mën la duggal aljaana bila iqaabin wala xisaab te nag dugg aljaana ni réglé la donte ne liñ la réglé nekk na lu xaw yoon waaye waaye ñàkk laa réglé moo gën a neex moo gën a dal xel moo tax yàlla ne innama yuwaffa saabiruun ajruhum bi xayri xisaab mu ne muñ kat yi daal danaa matal seen ak payoor te matal ga rek mooy ma tàbbaleen xal jaana ci lu duhut ma leen réglé kon loolu tamit xéewal la goo xam ne ni gu rëy rëy la waaye ba ca des nag ci xéewalu àdduna yi képp koo xam ne yàlla dafa laa teg nattu gu mun di doon ci sa njaboot ci sa alal ci sa ci ci sa ci sa yaram nga delloo yàlla mbir mi ne ñun dee ci yàlla lañ baxee koo ci yàlla la ñuy dellu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un muñ ko muñ bu rafet su booba li nga ñàkkoon yàlla dina la delloo li ko gën loolu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo ko wax ah waaye nag extémé nañ ko ci ummu salmata bi nga xamee ni borom këram dafa génn àdduna yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw di ko jaale si wax ko ne ko waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun soo ko defee yàlla dina la jox ku gën sa jëkkër ji te dana la fay tamit payoor goo xam ne gu mag a mag lay doon ummu salmata ne ko danaa ko wax ngir li ma ko digal waaye waxuma ko ngir yaakaar ku mel ni sama jëkkër gi ci góor ñi ndax yaakaar naa ne ku mel ni moom ci mbaax ak yërëm maag bëgg ma desatut fi defar liggéeyam te njëm ba mu pare rek sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam takk ko te lu nit gàtt-gàtt xam-xam xam nga ne yonentu yàlla muhammad moo gën jëkkëram joojane kon nag ko xam natt gu mun di dal nga delloo sa bopp ci yàlla rek muñ ko muñ gu rafet su boobaa yàlla dana la jox xéewal gu gën a rëy gën a sakkan gën a yaatu ki nga xam ne nii moom nga ñàkk muñ nag ak mujjee du huñ benn léegi-léegi nit nattu dal ko muy kat ji kanamam ay yëreem aka ya ci aju yëg ne lii mënta continuer ne du lekk du naan dama dem ba si yàgg daal mu ne ah lii daal xam ne mënta continuer mu ne nag léegi damay muñ ko muñut dafa mujjee li mu waroon a njëkkee dafa tamit ñàkk pexe moo taxoon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne asabru inda sadmatil ula te loolu mi ko waxoon benn jigéen la jëkkëram génn àdduna wala doomam mu toog ca xabru ba di jooy jël suusa di ko fëlamoo muhammad sallallahu alayhi wa romb ko ne ko muñal ci yàlla mi nga xam ne moo la ko joxoon mu jaaleel bi ko joxar bi ko ne ko li ma dal dafa laa dalut moo tax nga di ma muñ loo mais ba mu koy wax loolu xamutoon ne ki muy wax ak Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee rek ñam nekkatoon wax ko ko ni ko xanaa xamoo kii mooy yonantu bi yërmande bi mooy yaakaaru xeet wi rek mu sol daal dàllam daw ñëw fekk yonantu bi këram sukk ci kanamam ne ko baal ma àq ci kàddu yi ma la tontu dama xamutoon ne yow la léegi nag damaa fas yéene muñ ci li ma dal keroog la ko yonantu bi ne ko ah asabru inda sadmatil ula muñ daal ma nga nekk rek ca tuy ju njëkk ya fa la mbir ma dalee rek ca saasa rek foofa nga war a delloo sa bopp ci yàlla muñ ba a nekk ba nga xamee ne nii dem na ba jafe-jafe yi dem ba nga xam ne lii mënta continuer ngay door a wax ne damay muñ mu ne kon loolu duhut loolu kon dangaa mujjee li nga waroon na njëkkee kon muñ ngoog nekk loo xam ne nii lu ama am solo la te tamit ci li lay xamal ne saa yoo muñee li nga ñàkk lu lu ko gën a rëy gën koo yaatu gën koo sakkan a ngi ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ na ci moom keroog bi nga xamee ne nii yàlla ñàkkaloo na ko bàyyi taxam ba di Abu taalib ñàkkaloo ko soxnaam su tedd sa di Sayyidatuna Khadija ci benn maxat ci wenn weer ci benn semaine ñetti fan rek lañ rawantee ñoom ñaar yonent bi ba dëj ba ruusee mu ne maa ngi dem Taïf ndax ku ñàkk kër baay am nga kër yaay te mooy kër nijaay ay kilifaang fa su ma demee wax leen su ma wootee man a tamit jël suma gannaaw sukkandiku ci seen gannaaw pour mën a wéyal suma xoote mu fekk fa ñetti kilifa yoo xam ne daal ku xeboo rek tuddee leen kine fàng waaye duhuñ ay kilifa kilifa ak kine fàng nag duhuñ benn fekk bokk na fa fekk na fa abdu yaalilin fekk na fa masudin fekk na fa habibin abdu yaalilin ne ko nga ne ku la yónni mu ne yàlla mu ne ko yàlla ñàkk kum yónni ni mbindee fii xam yónni hut ku dul yow mii di ab jirim ñaari weer nga xam ci sa biiru ndey sa baay gaañu nga am juróom-benni at sa yaay gaañu nga am li nga xamee ne ni mooy juróom-ñetti at sa maam gaañu nga xam juróom fukki at yu manqué ñaari weer sa baay tax bi la fatoon di abu taalib gaañu nga bëgg a ñëw ñi fat la yow ku la fat léegi tey mu génn àdduna xam nga jooju wax wax ju ñaaw ju metti la Mas'ud ne ko ku la yónni mun a yàlla mu ne ko mënumaa wax ak yow bu la yàlla yónnee mënumaa wax ak yow bu la yónni hun mënumaa wax ak yow yàllaa ma yónni benn muy dëgg mbaa ñàkk nekk dëgg bu dee dëgg mënumaa wax ak yow ndax ndawal yàlla rey na mënumaa wax ak moom su fekkee du dëgg nag ku dul wax dëgg man mënumaa wax ak moom kon daal wax yow mënta dox ci suñu diggante bu ko defee nag léegi Habib ne ko ku la yónni mu ne yàlla mu ne ko dina la neex xiirtal nag xale yu xamul kilifa ya ak mag ñun yarut ak jigéen ñu jëmut fenn ña di koy sànni xeer ak a ba xaañ Sayd ibnu Xaarisa tamit antoon ak sànni xeer ba mu mujj dal tànk bi yonent yàlla Muhammad bu sell ba ba mujj deret mujj sotteeku loolu ni mu méttee jibril fekk ko fa ne ko sa borom jox na ma ndigal ma jël ñaari doj yi këpp ko ci dëkk bi ñëpp dee ndax moom liñ ko def lépp mu ngi jàkkaarlook yow di ko naqarloo di ko méttitlu yonentu bi jéggal leen jéggalul leen layal leen jéggal na leen moo tax toppante ak ñoom jéggalul na leen ndax nee na allahuma ixfir lahum yow yàlla yàlla nga leen jéggal layal na leen ndax wax na ne fa innahum laa ya'lamuna dañoo xamul rek moo tax ñi di ma teg lii kon jéggal na leen jéggalul leen layal leen léegi nag ba muy ñib si ànd ak tiis waa ak naqar wa ba xeg si place bu nga tuddee naxlatu toog di noppalu yàlla tàggatal ko juróom-ñaari kuyal jinne yoo xam ne dañoo amee melokaanawu nit ba ñuy ñëw wan ko ne ko bu la nit ñi weddee réere la jinne yi ñoom réere wuñ la weddi wuñ la yonent bi jàng alquran alquran ja neex ba jommal jinne ya nga xam ne sax ña ngay wax ne inna sami'na qur'anan ajaba nga gis ne sax Oustaz Assane ku jommi ñu ne xanaa dafa gis jinne waaye kon jinne mii nga xam ne ku ko gis jommi bu déggee lu ko jommal loola mën naa jommalaat te mooy alxuraan moom mooma nag jinne yi bi ñu jommee sukku ci kanamam laaj ko baatu seede beeg sarta yaa ngi ci aju dugg ci diine yonentu nag moom foofu jàpp ne rek ay nit lañ gannaaw si ga laaye ba mu wàccee muy wa is sarafna ilayka nafaram min al jinni yastamicuuna al qur'ana falama xadaruhu qaalu ansitu falama qudiya walaw ila qawmi munzarina ci la yonentu bi door a xam door a yëg ne ndeke kuy yema fekkoon ca xurwa ca naxlatu duhuñu ay nit mais ay jinne lañu juróom-ñaari jinne yooyu ñooy kibaaru saxaabaam yi ci jinne yi comme ni Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Ali yu nekk kibaaru saxaabaam yi ci nit ñi comme ni Jibril ak Mikaayil ak Asraayil Israafil nekk kibaaru saxaabaam yi ci malaaka yi juróom-ñaari jinne yooyu sax njëkk gi njëkk dugg ci lislaam tax na yàlla sagal na ak baaxe na boroom xam-xam yi wax ko ne mokkal seeni tur yàlla dina la fanqal pexem jinne dana la musal tamit ci xayu jinne nga ci xaju ba duñ la mën a lor duñ la mën a jege duñ la mën a yàqal moo taxoon shaayir ba boole ne leen ci ñaari bayt yi nee na min macharil jinni nazamtu nafara asxaaba xayril xalqi minhum xufira munsin wa naasin sharafin wa shaasiro wa amir ibnu jabir wa naasiru wa saahibu sabaati fa huwa laxqabu fa haulaay xaafiduhum laa yuqrabu kon juróom-ñaari jinne yaa ngoog kenn ka tudd munshin kenn ka tudd naashin kenn ka tudd sarafin kenn ka tudd saashir kenn ka tudd naasir kenn ka tudd laxqab kenn ka tudd amir ibnu jaabir juróom-ñaari jinne yi képp ku mokkal seen tur te ñoo ñi njëkkoon a tuub dugg ci diine lislaam fekk yonentu ba ca naxlatu gannaaw bi mbàyyee ko taay fa am juróom fukki at ci dundam yu manqué ñaari weer yàlla dina la musal ci pexeem jinne ak ayu jinne ak lépp loo xam ne nii aju na ca loola kon gis nga ko ba ñëwee ci nattu ya ko nit ña tegoon ci wàllu deseel ko ci wàllu beccangal ko ci wàllu sànni ko ay xeer ci wàllu ñàkk koo xormaal ak fonk ko ci la ko yàlla fayee ay jinne ñëw dugg ci dina lislaam ba tey gis nga jinne yi niñ xem ci diina lislaam kenn xamu niñ toll moo taxoon keroog junne nasibiina ya ba ñu ñëw ci muhammad ñu bëri nañ bëri goo xam ne alquran fa wax ne dañoo mel ni see xam fas ci bëriwaay kaanu libadan yakununa alayhi libadan kon loolu ngir ak seen ak bëriga ak seen ak jéggi dayo ga moo taxoon kon ni kawaru fas seq ma bëree mu ne noonu lañu ñu bëree tamit maanaam ci kanam yonent bi ak lañ ak nañu sakk neeg ya ci aju kon muñ ngoog saa yow muñee rek li nga ñàkk lu ko gën ngay mujj am te boo seetee tamit saaba yi ñoom xàmmeewuñu woon nattu ak xéewal ndax ñoom dañoo jàppoon ne nattu bu la dal ba nga war a muñ sax parce que xéewal la ndax yonent bi sallallahu alayhi nee na bépp nattu bu dal nit ki ci xalalam mbaa mu dal ko ci njabootam mbaa mu dal ko ci yaramam mbaa mu dal ko ci lu mun di doon dafay kafaara ay bàkkaaram di di ko raxas ti ay tilim-tilim ba ëllëg bu dajeeg yàlla du xam benn tilim-tilim yàlla da ko jël tàbbal ko aljana ba yonentu bi sax nee na yàlla su nammee ki jaam bi yiw dafay gaawe ay nattoom fii ci àdduna bu nammee ki jaam bi ak yiwadi dafay dagale ay nattoom mu nekk ci jàmm du xam benn natt du xam benn gaar-gaar boo lëggee bu deexee dajeeg yàlla rek bu ko defee nag yàlla dajale woon yooyu yëpp def ko ko am mbugal waaye nag bu dee dafa namm ci moom xéewal nag da koy nattu par nànk-nànk yooyu di raxas ay bakkaaram ba bu dajeg yàlla du fee day fekk mu set wecci moo taxoon saaba yi ku ci xam sax nattu da ngay bég mel ni ku ñu tegal ñam wu neex ni ngay bëggee ci boo xiifee ñoom tamit ñu ne ku ci amoon nattu rek ku ci amoon nattu noonu ngay bégee moo taxoon benn bis yonentu bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na leen mbébét leen ci yiw yi yàlla lay joxe kii kenn ku na mbébét li mu bëgg am benn saxaabi yu ne ko man daal li ma mbébét mooy sama ñaari loxo yi ma tibb ko suuf ba mu fees pepp suuf bu nekk yàlla wërsëgal ma ko doom doom yooyu yàlla moom seen bakkan laata ñuy mësoor ngir rek ngir loolu mu ne mu am ko ndax mën a am yiw yoo xam ne yu bëree bëree bari la te ñoom ku ci mos a xam ñeen fukki fan yoo xam ne yëgoo ci sa yaram dara yëgoo ci sa alal yàqu yëgoo ci sa njaboot benn naqar yëgoo dara rek su boobaa da ngay yàlla dafa laa jéppi dafa am daal loo def yàlla ba tegul la nattu moo taxoon kon ñoom nattu yi ci boppam xéewal lañ ko gisee woon ak yooya waaye ànd ak loolu lépp nag yonent bi nee na nag isalullaha alafa wal afiya bu ñu wax ne loolu ay xéewal la ba tax nga ne maa ngi ñaan yàlla teg may nattu ñaan yàlla teg ma ay musiba ngir mu raxas samay bàkkaar déedéet yàlla moom laa yusalu amma yafalu uhum yusalun la muy def moom xam na ko waaye moom mooy kiy laajte waaye moom kenn du ko laaj dara su ko defee nag bu la tegee nattu daal nga muñ ko delloo sa bopp ci yàlla rafetal def ya ci aju lépp nag soo xamee tamit jox na la xéewal nga muñ nga sant nga rafetal delloo yàlla tamit li nga xam ne nii moom la la delloo njukkal ga te tamit nag suñ mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi kenn ku ci nekk ci ñoom yàlla tegoon na ci yow ay nattu yoo xam ne doyoon na royteef ci ñu mën a xam ni ñu war a mënee muñee nattu ku mel ni tey xaadimu rasul ku ne gis na ay nattoom yi nga xam ne diine euh, jaral na ko lu ne ca place bu nekk fésal na fa bi maanaam natt yi nga xam ne dal na ko ko mu muñ rek te yàlla tax ku mel ni Seydil Hadji Malick ku ne gis na tamit ay nattoom yi daroon ci moom ci place ay tuxu yu bëri tabarkàlla lu ne tamit mu nattu mu dal ko ci ay nattu ak i ay gaar-gaar lépp rek mu muñ ko rek ngir liggéeyal diine ku mel ni maam El Hadj Abdoulaye Niass nga xam ne dundam lépp mosta toog fukki xat yu mu toog benn benn dëkk lu dul Kaolack waaye fu mu xam ñaari xat yi ñetti xat yi juróomi xat rek toxalu xat dem fu nekk kooku tamit ku ne xam na ne ay nattoom bari na waaye gis nga tamit bi mu ko muñee lu ko yàlla defal ku même ni al mahdiyu al muntazar muy imaamullahi moom tamit tabaarkàlla ku ne gis naa ay nattoom ci ba muy fesal wooteem boobu ak ya ca aju wax dëgg yàlla natt yu bari gaar na ko ca waaye ba mu ko muñee tey yooyu yëpp dafa mujj jeex ak ku mel ni kunta Njaasaan ak ki nga xam ne mooy borom ba tabaarkàlla di suñ maam amari ndaag gis ngeen ko xeexam yaag tubaab baag jafe-jafe ku ne xam na ko kon daal muñ lu xam-xam solo la olof yi sax danañ koy léeb ne képp ku muñ rek da nga muuñ waaye ku dul muñ moom du muuñ mukk kon balaa neex rek fokk mu naqari bu naqaree nag ba nga xam ne jafe-jafe yi ñëw na ba ñëpp di rëg-rëgi naan ah, mata nasrullahi kan la ndimbalal yàlla ñëw fekk nag ndimbalal yàlla ñëw na la allah inna nasrullahi qarib ndimbalal yàlla yu jege la ndimbalal yàlla mi ngi seen kanam kon nag nañuy muñ nattu yi nañuy muñ tamit jafe-jafe yi nga xam ne yàlla ñu ngi ñu koy teg te delloo yàlla lépp rek di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla moo ñu moom ci yàlla la ñuy dellu kon moom mi ñu moom lu ñu neex rek mu teg ñu ko doomu aadama nag moom dafa féex loo ko dénk bu yàggee moom dafay foog ne moo ko moom fu mu ne am na dem ba foog ne ñoo moom seen bopp am na ñoo xamante ni la leen yàlla dénk ci alal ak i njaboot dañuy dem ba foog ñoo ko moom ba bu ca dara rek moo am lu ñuy fësal ci seen xar ay jafe-jafe waaye fekk na loolu lépp wàllu yàlla la dafa la koo dénk rek dénkaane ba yàgg waaye bu dénkaane ba yàgg mukk nag ba nga foog ne yow yaa moom mbiram dénkaane beegee ci aju kon yàlla nañu yàlla may dégg suñu déggee yàlla na ñu topp suñu toppee yàlla na yàlla gis bu yàlla gisee yàlla na yàlla nangu bu nangoo yàlla na yàlla fulande nangu suñu njaam nangu tamit suñu jaamu kër gii di Walfadjri yàlla na ko yàlla gën a dëgëral dëgëral ay ñoñam a dëgëral tamit suñu waajur ah Mouhamed Sidi Lamine Niass nga xam ne liggéeyam toujours mooy fesal diina ji ak taxaw ci yàlla na ko yàlla doole dimbale Oustaz Assane Diouf moo nekkoon ci xarale gi ba ngeen dégg kàddu yi ci jaw ji ni mu leen neexee seen mbokk Hadi ñas moo nekkoon ci micro bi di leen jox beneen daje wa axiru daxwaana ani alhamdulilahi rabbil alamin vous écoutez